waa ñu ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu di leen jox seen waay di nuyu axlu làmb yëpp di nuyu suñu njiit président Macky Sall di nuyu Marème Faye Sall première dame ñu koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm axlu làmb yëpp di nuyu di nuyu ministre Matar Ba di ko ziar bu baax a baax di nuyu ancien gloire yi di nuyu manager yi di nuyu entraîneur yi di nuyu tamit mbër yi mbër yi nga xamante ni moom wax dëgg yàlla ñu ngi si làmb ji ñoom it ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di ñaanal suñu magul làmb yu fi jóge yàlla xaree leen àjjana suuf fooy seen kaw yàlla yóbbu leen ci àjjana yi daw si mbër yi mag yi nga xamante ni ñoo fi des yàlla yokk seen fan bu gudd wéral seen i cër loolu nañ leen di nuyoo kontaan nañ bu baax a baax a baax. waaw man nag wax dëgg yàlla maa ngi dugg 2007 laa dugg ci làmb ji mbapat nag ci àll bi mbapat yu metti amul dëkk séeréet boo duggul fii mbapat naa fa champion yu bëri maa ñoom ñoo doon mbapatandoo ma jóge ci mbapat bi nag ci laa nekk ikiri yi géej nekk fa ba mu yàgg après ñu ber suñu ikiri yi gëm sa bopp ñu nag ñoom bàyyi ma njoon ak nees ma juge fa suñu waajur yi ma woo ma nu mu tuddati père Balla Gaye na ma ah nit amul lu dul lu dul mbokkam ma nekk école it Balla Gaye nekk fa ba mu yàgg nag si laa jóge foofu nag ñëw nag ikiri Serigne Ndiaye écurie Serigne Ndiaye nag mun naa ni falaa tekkee ngeen kon tey jii dox naa ci làmb xam naa làmb li muy li muy li muy li si nekk ci biir mun naa ni 100 pour cent ñu dund nañu làmb ñu jógee nag ci làmb ji am yeneen liggéey yu ñu doon liggéey ubbi suñu entreprise di liggéey woo ay mbër yu ndaw jàppale leen dugal leen si ay post di leen jàppale si liggéey bi toujours ñun ñu ngi si làmb di dox gis làmb tamit na muy doxee looloo ñu dugal tey jii tamit ñu dem ba ci biir li ñu yàlla dimbali ñi nga xamante ni dañ ko liggéey ba yàlla may ñu ko ñëw delloo ko làmb delloo ko si làmb parce que tey jii bu mu ñëpp xamee tey jii mun naa ni cent pour cent làmb si la waaw tey jii man mooy li may wax mbëri ndaw yi rek man bi ma nekkee ci bëre damaa boore bëre ak liggéey mu naan si sareet laa njëkke yor sareet après ma dem def maçon jóge si mason dem def garde garde corps ba yor sama carte professionnelle lépp dama ko boole woon ak bëre bi parce que nee nañu nag mbër bu ndaw waroo toog rek di xaar bëree bëree bëree loolu laa ko boole woon a dem nag yàlla dimbali na ma ba ma dem si liggéey bi ba ubbi sama entreprise bopp. ba pare am naa samay employé yoo xam ne ñu si bëri ay mbër nañu maa leen jël te mun naa ne mbër bu fiy liggéey mbër bu nekk rek bokkook sa morom écurie te maa ngi leen tàggat fii di leen jàppale. voilà waa loolu bëgg naa ko leeral tuuti sénégalais xam ko parce que tey jii mun naa ni licence bu ma moom la ñoom Balla Gaye yor moom la ñoom Modou Lo yor. teg si tamit ma dund làmb mooy li ma wax sàng rek ma dund làmb dund bu metti xam làmb la ci nekk lan la tey ji mun naa ni su ma toogee fii ñëpp ñi may seetaan xam nañ ne kii mooy Joe Technique yor nañu samay vidéo tey ji li ma yàlla dimbali tey ji moom may yor ko tàggat ci xale yi di leen ci jàppale looloo tax tey ji ma dem ba ni man li ma yor nii di ko di ko di si def si làmb pourquoi man mënumaa ma toog tey ji dégg ñoo xamante ni mun naa ni xamuñu sax nu ñuy takkee ngemb tey ñoom ñu toog di laaj CNG ma ni kon anaam na man mi jaar ci bëre xam ci bëre lu bari kon man tey jii waruma toog fii sax ak li may jàppale mbëri man sama bopp laa gëm man gëm naa ne li may jàppale mbëri li ma leen di soutenir non man du ma moroomu sax ñooñu ñu tudd mm. du ma seen moroom bokkuñu sax man sama bopp gëm mm. man dama gëm ni man suñ ma joxee CNG bi billaahi wallaahi waxatu naa ko te dinaa ko waxat ma doxal CNG bi li ñu ko bëggee dinaa ko doxalee noonu non du loolu de parce que tey jii mën naa ne fii mbërul làmb boo gis ah la mu mën a jiite bari na gis nga njiit xam nga fan lay tàmbale njiit si kër lay tàmbale ci waaw njiit si kër lay tàmbale ñun dañoo nekk xale yi ndaw jiite ñu yanu suñu kër yi di ko di ko muñ di ko muñ ba si fii boole si yor suñu agence buut boot ay xale di leen jàppale ñu dara nag làmb rek nañuy dund tey ku ma fekk fii ma naan jox leen ma équipe nationale football bi ma yor ko wala basket bi laa bëgg a yor gars yi dañ ma war a wax ne nag yow buñ bu ñu fontoo parce que licence su mbër laa yor kon si mbër laay wax man du ma dellu ginnaaw mbër laa woon ba keroog may dee mus naa jaar ci bëre. voilà waaw loolu maa ngi koy dégg gars di ko wax mais mun naa nekk. Hmm. parce que tey jii président écrit yu su bëri dafa am lu ñu xaw a réere mbir tuuti parce que ñoom dañuy naan président écrit laa rek sama écrit laay laay jàppale hmm. ku si mel ni njiitu réew mi moo ñu jiite. yaa ngi dégg te pourtant moo jiite football bi jiite jiite jiite sport yi nga gis yëpp moo ñu jiite jiite nit ñi bépp sport boo fi gis moom moo ko jiite président écrit nag kon si loolu la soso man tey jii comme li ma waxoon rek man amul benn mbër buy ñëw fii bi naan bi laa ne man ñëpp laay jàppale man amul benn mbër bu ma dul jàppale parce que président écrit bu ma seetaan tey jii may wax war na si gis boppam parce que man moom wax dëgg yàlla yemuma sama écrit kase man mbër yëpp laay jàppale. waaw Tyson lu ma ciy wax mooy mën naa jiite CNG. waaw mun naa jiite parce que mbër la woon waaw mbër la woon mën na kaa jiite parce que loolu mooy àdduna ko tey jii bu ko fi yàlla tegee tamit ñun dañ koy nangu waaw mais man mënumaa nangu nag koo xamante ne nag musoo xam sax dëgg nag xam nga sànq xam nga sànq euh, am na lu lu ma waxoon nee naa ñun décidé wuñu pour ñu taxaw ministre bi moom mooy décidé kuy fal ministre bi mooy xool ku ko neex mu fal ko mais nag ñaan nañu yàlla nag ah mu mu ñamal ñu nag parce que nag wax dëgg yàlla ñun ay xale nañ nag. mu ñamal ñu waaw waaw waaw nañ ñamal nag ñu do ñu doxal tuuti parce que tey jii. Ah. am na ay points yoo xamante ni def nañ ko jàngat nañ ko depuis mois ñu ngi siy dox di xool làmb la mu soxlaat lépp ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi si ñu ngi siy xool kon tey jii war nañu jàppale ñamal ñu si tuuti ñu xool ni muy demee. maa leen di jiitu par force. parce que xam nga la moo tax fu ma ko teg ah. maa leen ëpp mbooloo. maa leen ëpp mbooloo fuuf. Kéba Kanté du ma moroomam sax si fii maa ko ëpp mbooloo téeméer fukki junnoon te xale yi man nañ gën a bëgg. Hmm. parce que xam nga la moo tax. li may jàppale mbër yàlla moo ma tiim ñoom jàppale ko ay mbër. Hmm. man dem mais nag Kéba kan <laughs> dugg. Eh. non si pour bu bës parce que xam la moo hmm. man damaa jaar ci bëri man si boo tàppee sama combat sama combat yi ñëw. mais est-ce que fay. ban fay man tey ji làmb ji ñaar turandoo la ci am man am naa zone technique numéro 2 Kër mbay Fall. 7 hmm. combats 7 victoire. moom nga def. non non sama turandoo. Ah, sama turandoo zone technique numéro de 7 combats 7 victoire. man ma ñëw bëre làmb TNT bi bëre naa si. mbay hmm. Ama Balde di bëre Zos guy gi. bëri naa si man wutuma ay buzz man Sénégal njaay xam nañ ma ba pare. fii man da coow li xam nga lu koy fay mooy ñu jàppale anciens gloires yi jàppale managers yi jàppale entraîneurs yi jàppale supporters yi jàppale amateurs yi arbitres yi tamit ñu jàppale leen parce que ñoo ñëpp dañuy jooy ci làmb su su anciens gloires yi nag parce que tamit feebar. ñuy nekk ci dëkk bi di ket nan diw dafa feebar yooyu noonu wax dëgg yàlla war na fi jeex quoi damay wax si waaw te yàlla rek tax yooyu war na fi jeex mbër mu daw bu feebar ñu nekk ci àll bi di la ketal naan diw dafa feebar nañ ko dimbali xam nga te làmb suñu sport bi nekk sport boo xam ne sport noble la kon yooyu war na fi jóge quoi man moom loolu laay képp kuy ñëw tamit di toog yooyu noonu nañ ñu si dimbali nga jàppale ñu si non Alioune ñu fi ñu koy wax dañoo xamul parce que tey jii mun naa ni boo ma fekkee sama bërëb bii may liggéey nga may ŋàññ duma neex parce que li may daj fii ñoom xamuñu ko Alioune Sarr kenn du wax ni liggéeyul si làmb Alioune Sarr dafa daj ci làmb lu metti bi boobu ba léegi mu yor ko di doxal làmb ku xool làmb fa mu nekkoon ak tey jii fa mu ko yóbbu ba arène nationale mais kooku nag yoon la ñu sant ko gërëm ko dëgg la nag mbir am na foo xam boo fa tollee loolu si ñëpp la nit dangay liggéey ba fii nga taxaw keneen ñëw yeggali bu jàllee tamit dañuy xam ne jàll mais ñun taxaw ñu di ŋàññ Alioune Sarr loolu di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wér-gi-yaram waaw loolu moom ñun gis nañu lépp nu mu demee gaa yaa ngi coow ci làmb ji kii jël na avance diw war na ko lekk waru ko lekk waru delloo ko xaalisam avance 10 millions yi pour man yooyu yëpp jaru ko gis nga làmb am na yenn yoo xamante ne sax dafa ñaaw ñu koy génne ci image bi ay jox nañ diw 10 millions 10 millions moo des ñu koy ŋàññi ci télé bi mbër mu mag bi kii naan jox naa li promoteur bi taxawu defee naan jox naan yooyu nañ ko bàyyi làmb affaire noble la nañ bàyyi yooyu ñuy def parce que tamit mbër nag boo ko tëggee combat jox ko avance defe naa ne dina la bëreel soo ko joxul avance nag gëm naa ni nag chaque jour coow da ciy am ñun def nañu suñu gëstu def suñu enquête xam nañu anciennes gloires yi lan mooy seen problème ñun yëpp def nañ si enquête. kon tey gis nga lii nii buñ ma buñ ma. joxoon tey ji bopp CNG bi dama koy doxal nu mu waree parce que bu ñu la falee nga nekk président CNG war nga gëstu mbër yi di dem seen écurie yi di waxtaan ak entraîneurs yi di waxtaan ak managers yi parce que loolu mooy làmb anciennes gloires yi war nañu am poste CNG si làmb ji war nañu doon foofu ay juge toog ñu xam ni ñii ñooy anciennes gloires yi parce que loolu dafa nekk loo xam ne lu rafet la ci làmb image bi di leen génnee ñu naan mbëri démb yaa ngi nii loolu dafa nekk loo xam ne lu neex la di leen gësu di leen toppatoo seen wérgu yaram loolu da ciy baax tàggatoo bi nag lu dul di sant sénégalais yëpp di wax njabootu làmb maa ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu dara nag lu dul dara waralu ko lu dul ay mbër nañu woon yor licence dugg ci làmb ji bëri ji ba bàyyi bëre kon yoon la tey ji ñu gëstu làmb doxalaat ko bu baax di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal di wax ni président Alioune Sarr yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla defal jàmm wax dëgg yàlla man loolu laa koy ñaanal di ñaanal Sénégal yëpp jàmm di wax réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm si barki Seydina Muhammad jërëjëf